mbokk yi safoo di déglu seen télévision bi di seen teranga tv rawatina seen émission bi tabaarakallahu di kër yonent ngeen ànd ceeg seen xarit seen soppe oustaz Mbagnick Mbaye tabaarakallahu nuy def saasu ne rek léeg-léeg nu indil leen ay boromi xam-xam yu màcc ci euh, lislaam tabaarakallahu léeg-léeg itam nu indil leen ay thèmes yu am solo tabaarakallahu tey nag mbokk yi nu fas yéene waxtaane gaaf yi nga xam ni bépp jigéen boo gis ci moom mu amee ko rek kooku moom bul ko takk bàyyil loolu la ñuy fas yéene waxtaanee incha allahu taala mooy lii may bëgg a waxtaanee bépp jigéen boo gis mu am lii may bëgg a waxtaanee bàyyi ko fa xamal ni kooku du jigéen kooku du soxna bàyyi ko fa tabarakallahu loolu la arab yi wax qaala baadul arabi laa tatazawaju min annisaai sabaan am na juróom-ñaari jigéen yoo xam ne sept femmes yoo xam ni kenn du leen takk ku leen takk yaa ngi ci musiba boo leen takkee sa sëy du neex di nga am problème wala ci problème rek ngay dëkk wala boo amee doom itam du barkeel doo jur doom ju baax juróom-ñetti ji juróom-ñaari jigéen yooyu laa la bëgg tuddal inchaa allahu taala juróom jigéen yooyu laa la bëgg tuddal inchaa taala bi ci jiitu dana wax ni laa tatazawaj al annaana wal mannaana wal xannaana wal xaddaaqa wal barraaqa wal shaddaada wal kannaana tabaarakallahu dinaa la ko leeralal xam naa di nga ni <laughs> kii li muy wax yéeme na jigéen bi ci jiitu mooy bul takk lu nu tuddee al annaana fal annaana min ashakwa wal aniina wa ghasabin rasiha tadaharan tadahara bil maradi dana wax ni bépp jigéen boo xam ni foo ko fekk day wonk rek di jàmbat bu tayee mu ngi jàmbat biir buy métti bu subaa mu jàmbat bopp buy métti ginnaaw suba mu jàmbat tànk yu métti ndigg luy métti jigéen joo xam ni li alof naan jabaru ordinance bàyyi ko fa bul takk kooku dina la réwi na boo ko takkee sa àdduna ji yëpp loo liggéey fayee ko ordonnance jëndee ko ordonnance kooku bàyyi ko fa jigéen joo xam ni jabaruk ordinance la bàyyi ko fa bul takk bépp góor bu gë bëgg réussir àddunaam buy takk bu takkee jabaru ordinance àddunaam lu ci ëpp day échec dootul gisati dootul ah, maanaam pour mu jug dëgg dëgg dëgg réussir àddunaam du yomb ndax lu mu am dana ko demee hôpital ndax jabar ja am na jigéen yu mel noonu jigéen ju mel noonu nag tabarakallahu dafay teel a jël précotion kooku gaaf la ci jigéen kon yow góor booy dugg yii ma lay wax nag day feeñ ci ngoro gi moo tax bala ngaa dugg ci jigéen xool ko xoollu ko seetlu ko bu baax a baax xool ay qualité xool yi nga xam ni moo feeñ ci moom gaaf yu feeñ yi ak gaaf yu nëbbu yi doog di mën a dugg ci jigéen bépp góor bu dugg ci jigéen ju koy jigéen ju bari feebar jigéen jooju dina ko ruiner bam jeex sëyam du neex léeg-léeg sax di nga soxla sa bopp jigéen ji ni la dama feebar dama amee bopp buy métti wala sama biir day métti kon kooku sëyam du neex kooku mooy bu njëkk mooy al annaana ñaareel bi mooy wal mannaana al mannaana allati tuksiru minal man ni ala man faalat fihi maarufan bépp jigéen boo xam ne boo ko takkee jigéen joo xam ni moom bu la defarelee lu baax day taxaw di ci di ci ndamu am na jigéen ñu mel noonu amaana seen jëkkër mën na bañ a am lu bari ñoom nuy dimbali seen jëkkër mais ñépp dinañ xam ni ñoom ñooy dimbali seen jëkkër ñépp dinañ xam ni ñoom ñooy jàppale seen jëkkër jigéen jooju baaxul boo ko takkee rekk nekk ci musiba moroon ni allati yuksiru min al ni ala man faalat fihi maarufan jigéen joo xam ni ku mu defal lu baax rek taxaw di ko ndamoo lu mu def ci lu baax rek taxaw wax ko kooku bul ko takk boo ko takkee mu xaawi sa sutura ndax lu mu def sa kër ëllëg dina taxaw bàkkoo ko dina taxaw ndamoo ko mën na taxaw ba sa askan yépp taxaw mu doog di ndamoo lim la defal kon bàyyil foofu jigéen jooju ndax jigéen dafa war a am sutura jigéen war na mën a dimbali jëkkëram te kenn du ko yëg jigéen war na mën a fekk jëkkëram du am dépense jëkkëram nekk ci ay jafe-jafe mu jaay ay oram jaay ay takkaayam lépp lu mu amee woon mu jaay ko faj ci aajooy jëkkëram te kenn du yëg xam ni sama jëkkër ji ba mu amee kat daan na ma defal tey dem na ba loxoom jotul ginnaawam kon man war naa mën a delloo mbàtt ma ca ndaala tabaarakallaahu kon bi ci topp mooy jigéen joo xam ni dafay dafay vantewu lu mu def ci lu baax rekk tudd ko wal xannaana ñetteel bi mooy alxannaana xannaana mooy allati tuxinnu ila zawjiha al awwal jigéen joo xam ni fu ngeen toogee di waxtaan rek mu tudd exam jigéen joo xam ni amaana sëy na ba tas waaye foo ko fekk rek ma ngay waxtaanee jëkkëram ju njëkk ja ay sama jëkkër ju njëkk ja moom de dan na ma defal nangam ak nangam jigéen jooju bàyyi ko bul ko takk bu dee exam la xelam ma nga ca jëkkëram ju njëkk wala mu ngi ci exam ba tey bàyyi ko fa kooku jëkkëram ju njëkk jooju bu fekkee mu ngi dund di waxtaanee jëkkëram ju njëkk xamal ni ñoom ñaar bu amee occasion moom jëkkëram ju njëkk leneen mën na caa bi kooku ba ko te xam ni kooku mbëggeelam des na ci yow ndax bu mbëggeelam dëggu woon ci yow dootul tuddati jëkkëram ju njëkk waaye jigéen joo xam ne tas ak jëkkëram ju jëkk lu ni nii rek mu ni sama jëkkër ja lu ni nii rek mu ni sama jëkkër ja góor gu am fulla sax du nangu loolu nag tabaarakallah ndax góor dafa war a fiir bi ci topp mooy alxaddaaqa alxaddaaqa mooy ñenteel bi mooy allati tazaru tanzuru ila kulli shay'in wa tashtahihi mooy jigéen ju matérialiste bàyyi ko fa jigéen joo xam ni lu mu gis rek xelam ne ca lu mu gis rek sa uh, wax jëkkëram doo ma jëndal nangamam kuy jaay rek lu romb sax mun la jëndal ma ci bàyyi ko fa kooku dalay daaneel jigéen ju matérialiste sa ngoog lu waay am lu lu waay am rek jigéen moroomu jigéenam yi lu nu am ni moom dina ko am te du ko yaakaar kenn ci kudul jëkkëram kooku boo ko takkee mu ruiné la ba nga jeex doo réaliser dara ci sa àdduna kon alxadaaqa mooy koo xam ni dafa matérialiste jigéen ju matérialiste ba fa bul fa takk boo ko takkee rek am problème bi ci topp mooy albaraqa allati di ëglaba nahariha fi saqlin wa tasyini wajhiha mooy jigéen joo xam ni foo ko fekk dafay puudaroo ko parcelu waaye yow sa jëkkër doo ko def sa kanamu jëkkër waaye yow saa yoo puudaroo saa yoo parceloo yaa ngay dem xew maanaam saa yoo sañsee rek xew la yow nit ñee tax ngay sañse mais sa jëkkër du tax nga sañse kooku sa jëkkër du gis sax sa taar jigéen joo xam ni boo nekkee ak moom mu sol yére yam daan duggee ca waañ wa moom lay sol boo nekkut ak moom ma nga ma nga ca leneen jigéen joo xam ne du ne ci sa service mukk sañse xew sañse xew sañse xew du musa toog sa wet ma ngay taxawaalu rek sañse dem na ca xew ma ndijaay ma dem te ñëw ma dem te sañse rek sañse génn dem sañse génn dem ñëwaat bu subaa sañsewaat génn dem ginnaaw suba mu sañsewaat génn dem jigéen jooju boo ko takkee dëgg-dëgg nag kooku nag moom tabaarakallahu jigéen ju bëgg àdduna ngoog jigéen ju bëgg passeloo ko puudaru kooku boo ko takkee dëgg-dëgg da nga indil sa bopp problème ndax kooku euh, sëyalu la mbedd mi lay sëyal ndax bu sañsee mbedd mi la sañseel du toog sa wet mukk du sañse mukk ba toog sa wet du sañse mukk ba bégal la ma ngay génn ca mbedd ma rek ma ngay taxawaalu ji kooku bàyyi ko bul ko takk bi ci topp mooy ashaddaqa shaddaqa allati tatashaddaqu bil kalaami daaim <laughs> mooy jigéen ju bari wax kooku ba ko koo xam ni day kebetu foo ko fekk ma ngay ngunum ngunumi ma ngay xool lu xew rek mu wax am na jigéen ñu bëgg loolu jigéen ñoo xam ni moom boo tëddeeg ñoom bu bërsët dan lay dan lay cokkaas rek di wax rek na ngay na ngay na ngay créer ay histoire jigéen jooju du la may benn yoon ko concentré wu jigéen jooju boo ko takkee am problème koo xam ni ma ngay créer ay bu histoire amul sax dina fexe ba créer ko di jaay ni daa fiir di jaay ni daa jonge di jaay koo xam ni daal foo ko fekk rek day créer histoire ba ko bul ko takk bàyyi ko mu dem jébbal ko ay mbokkam kooku du jigéen ju baax kooku lan tuddee shaddaqa shaddaqa nag boo ko takkee ci problème rek ngay dëkk ndax moom xamul lu dul ay wax yu sew wax rek wax moo koy dundal wax ju sew moo koy dundal jigéen jooju bul takk bàyyi ko fa bi ci topp mooy alkannaana mooy kan mooy allati daiman ma taqulu kaana abi kaza wa kaana yaamalu kaza jigéen joo xam ne moom boo ko waxee rek mun la sama baay nangam sam daan na ma defal nangam sam papa ma dóor man sam daan na ma defal nangam sama baay rek koo koo xam ni foo ko fekk moom papaam rek lay namoo mel ni ndey faatu sekk bàyyi ko fa bul takk koo xam ni papam rek loo wax mu ni sama baay loo wax mu ni sama baay hmm? sama baay la ëpp alal boo ma bawee sama kër bàyyee gën sa kër sama kër bàyyee gën a neex sa kër ba fa jigéen jooju mënoo koo defal lu mu gis papam lay jël teg sa kanam yàlla nag bu bàyyi ba ëpp la alal <laughs> wala bàyyi ba ëpp la dem demin ci àdduna am nga problème day jàpp ni kër baayam la ne ba léegi boo nee ko fóotal mun la mun la man sama baay sax daaw ma ko fóotal bay fóotal jàmbur du ma fóotal kenn toggal ma mun la man sama baay sax daaw ma toggaloo ba may toggal jàmbur du ma toggal kenn kooku bafa papam rek kooku moom bafa loolu mooy juróom-ñaari jigéen yi nga xam ni kenn du leen takk juróom-ñaari jigéen yii ma la wax yow góor gi toll ci takk soxna bëgg jabar bëgg sa sëy neex bëgg boo duggee ci sëy doo ci génnaat am ci doom yu barkeel bàyyil xel lii ma la wax boo ci tegoo rek incha allah ñii ma wax boo leen fi rombee dem takki keneen daa am jabar ju baax doo am benn problème incha allahu taala bu ko defee mbokk yi loolu moo nekkoon sunu darsu tey nu ngi jégalu ñëpp di baalu xàq ñëpp di leen jox dig daje ba aljuma ak jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.